doxal dañ koy dénk Pape Sané bu amee benn xam-xam ci benn domaine ñu ne kii mën nañ ko dénk lii buñ ko ko dénkee lan la ñuy xaar ndax mën na ko doxal wala mënu ko doxal bu ko mënee doxal problème amul li bon mooy nga dénk nit loo xam ne nii amu fa xam-xam amu fa compétence mënu ko doxal donc euh, président jàng na leçon ci ay erreur u Macky Sall parce que Macky Sall moom bi mu yéegee ci nguur gi même pas deux mois balayé na lépp loo xam ne Abdoulaye Wade bàyyi woon na ñii nag toog nañ pratiquement trois mois mu def quatre 82 nominations yooyu mu def wane na ne fast moo nekk maanaam fi mu ne président c'est comme si dafa yàkkamte parce que askan bi dañu yàkkamte te dañu war a gis ay résultat nu mu gën gaaw yaakaar naa ne loolu moo expliquer autant de nomination ci benn jour depuis mu yegg au pouvoir ba léegi mësul nommé 82 personnes ci benn conseil des ministres donc kon il est temps vraiment ñu débarrasser wu ak lépp loo xam ne nii tax na tax na Macky Sall ci ministère yi ak fu mu mën doon ñu raxas leen ba ñu ba ñu set wicc. Euh, mami déjà ci nomination yi comme ni ko waxee plus de quatre-vingts <laughs> nomination euh, Laye Makhtar xam naa ne faaw nga jóg ci sama. gaañi de dimbali ñu rek. nga xam ne yeewu. ñëpp ngay dem waaw waaw <laughs> yeewu. déjà ci lim bi laa wax est-ce que euh, nekkul une manière. te répondre ci ñuy wax ni yéex na ba tey am na ñoo xam ne ñu ngi ci poste yi te waroon nañu faa jógee oui xam naa ku mel ni Thiendella Fall aussi comme turam ñëw na ci <laughs> élection yi ñu génn <laughs> doon loo xam ne ñu ngi ko doon xaar. waaw Thiendella kay xanaa kay dafa téye buzz nomination bi rek waaye il est pas le seul. oui je pense que eh, ñi nga xamante ne daañu sauter c'est clair que ñu bari. Mhm. pour la toute bonne et simple raison que l'État est en train de s'installer et donc personnes yi nga xamante ne ñoom la yaakaar ne ñoo am compétence bi war pour ñu teg leen ci place boobu alors cette euh, longue liste de nomination li muy firnde rek mooy ne depuis lors ils étaient dans les concertations et certainement il fallait que ñoom ñu am le bon profil pour ñu teg leen ci place yi nga xamante ne moom la ñu yaakaar ni dinañu mën a am benn apport bu ñuy def ci liggéey bi ñuy def maintenant euh, que mu qu'il y ait des gens de Pastef yi ci bokk euh, c'est des choses à quoi il fallait s'attendre parce que ce combat ñoom ko tout seul à eux du woon euh, seulement le président Bassirou ak euh, Ousmane Sonko il euh, y avait toute une équipe derrière yoo xamante ne biir nañu lu nekk aussi si ces gens-là ont les compétences pourquoi aller chercher ailleurs su fekkee li ngay dem wuti ji feneen mu ngi ci sa biir bah certainement da nga koy jël ci sa biir ba noppi mm. door a dem wàlli ji dem wuti ji feneen donc je pense que vraiment ce qui est en train de se a rien d'extraordinaire c'est le cours normal des choses gouvernement bu bees la bu buy door a falu et donc ñun ñëpp dañu bokkoon ci nit ñi nga xam ne dañu doon wax ni pour que ce gouvernement là mën a liggéey dëgg-dëgg ni mu ko mënee il va falloir que ben toutes ces nominations là mu jeex ku ci nekk ñu xam ban poste lañ la jox et puis liggéey bi tàmbali parce que bu amee lenteur aussi Euh, système bi du du mën a dem ñoom ni ñu ko bëggee. voilà pour dëgg-dëgg ñu mën a am euh, résultat bi ñu soxla il faut que ils installent les personnes yi nga xamante ne ñoom la ñu yaakaar ne mooy mën a avancer loo ñii ñi mm. et comme direction yeeg agence yi dañu bëri il faut s'attendre aussi à ce que les prochains conseils ministres yi ñëw. mu amaat yeneen i nomination voilà donc nombre bi moom parce que fan yii passé c'est vrai que conseil yi mujjee on n'avait pas vu une aussi longue liste mais bi yoon peut-être que donc ce qui veut dire qu'ils étaient dans le processus boo xamante ne dañ doon dañ doon négocier dañ doon xool profil yi voir quoi donner à qui tout en mm sachant que décision bu ci mënti jël après y a le jugement derrière qui suit mm mais comme je dis man li ci am solo rek mooy ne ñi ñuy am compétence bi war et puis nañu am euh, euh, apport boo xamante ne mën nañu ko indil sénégalais yi je dis souvent que ñoom ñi ku ñu fal sax wax dëgg yàlla boo tëddee waroo nelaw <coughs> ndax ay nit la ñoo xamante ne li ma gis ci ñoom ci xeetu ñàkk ca caaxaan bu ñu la joxee benn poste de responsabilité bi war ngaa mën a tiit hmm. maintenant DGE nag pourquoi c'est exceptionnel c'est parce que l'histoire de Tiendela est finalement devenue une histoire même boo xamante ni histoire euh, nationale la. Mm-hmm. parce que Tiendella la ak la DGE ay tout ce qui s'est passé ci période élection bi fii cest à bokk na ci nit ñi nga xamante ne nit ñi gën nañu retenir seen ay tour euh, ci jaabante ayib dafe beek dinaa ko jox këyit duma ko jox këyit ak loolu yëpp nag tax na bu ñu ne wàccee nañu ko parce que te man loolu man pour man sax xanaa c'était quelque chose boo xam ne il devait s'y attendre et la question mooy est-ce que même mënoon waroon na toog sax xaar ñu remercier ko est-ce que warul woon a moom jël initiative bu boppam dem parce que ñi ci wóor ba wóor mooy y a des gens qui occupent certains postes ici euh, à moins que ñu def ay résultats yoo xamante ne danoo danoo danoo ay résultats yu baax lañu et pour man bu ñu defee résultat yu baax et que les choses marchent mais vraiment su fekkente ne aspect politique bi def ciy dugg torop ci ñoo xamante ne bëgguñu politisation du système c'est clair qu'à un moment donné les verrous vont sauter et c'est ce qui est en train de se passer pour man c'est une chose tout à fait normale. est-ce que am na pour yo lu koy justifier mooy li ñu doon aborder sànq ak Pape Sané dage boobu bokkoon démb ci APR ñu reconduiraat ko nekk daaj ca économie. Euh, am <clears throat> ay baal leen ma parce euh, ñi bokk ci Pastef ñoo xam dañ jàpp ni oui tout sauf ñoo xamante ne bokkoon nañ ci l' ancien régime. waaw mais ku bokk ci ancien régime itam te nga productif te nga mën liggéey li produit résultat yu baax <clears throat> pourquoi dañ la war a teg teggi enfin man c' est à dire que man li may promouvoir c' le mérite. Mm-hmm. je ne veux pas que ñu ñu promouvoir trop l' aspect politique parce que bu boobaa li ñu doon bañ fee la ñu nangu fii. Mm. on en arrive. à une certaine politisation je veux dire si au sein par exemple de ce parti il y a des gens performants yoo xam ne ñu ngi liggéey seen liggéey mënuñu leen taqee dara même ci wàllum politique amul lu ñu leen war a mën a reprocher pourquoi ñu leen fay teggi mais dafa am ay nit ñoo xamante ne quand même faut dire et c'est la vérité dañu nekk dans le système te ci anciens yi la ñu bokk te dëgg-dëgg xam nañ ne par exemple ku mel ni Thiendella la à chaque kañ kañ nga koy wàccee mu bett nit ñi xam nga bettul kenn les gens s'y moom ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi fii nit ñi xëy na bëgguñu leen gis ci entourage yu euh, gouvernement bu bees bi parce que voilà dafa am lu bëri loo xamante ne sénégalais yi dañ leen koy xoolee ñenn ñi di leen ko dencal du dëkk mm. léegi nag bon xam nga foo mënti ti tu trouveras des des pommes de terre pourries c'est dans tous les sacs. Mm. après faudra avoir la preuve que justement pomme de terre bi pomme de terre bu pourri la bu pourri wee nag da nga koy génnee ci saak bi sànni balaa moo yàq yeneen pomme de terre yi ci des. Mm. mais vraiment man damaa bëgg ñu promouvoir le mérite. parce que le mérite c'est important. comme pour autant aujourd'hui lii leen mënee wax ne oui vous êtes en train de euh, pastifier l'État waaw ma bañ ko noonu laay bañee itam ñu bañ a promouvoir li nga xamante ne moom mooy mën-mënu doomu aadama mm. je veux dire que aujourd'hui si c'est Ousmane Diagne qui mérite cette place bi ñu ko jox ci conseil des ministres parce qu'il en a les plen capacités. Mhm. pourquoi ñu ko du ñu ko jox Ousmane Pa Ousmane parce que dañoo jàppale ci Pastef la bokk ñu dem jëli ji keneen ku ñu ko jox. Mhm. alors que loolu ñu soxla mu ngi ci seen biir. ni ñuy réfléchir noonu noonu la war a mën a réfléchir également que am na ay nit ci Sénégal fii ñoo xam ne amaana soit ils ne sont pas politiques seen yoon nekkul ci wàllum politique ñu ngi ci administration bi mais dañoo xarañ est-ce que forcément dañ leen a a génne ci système bi. Mhm. na xëy na peut-être ci beneen coloration politique la bokk. mais il sont compétents ci seen liggéey maanaam dañuy produire ay résultats bu dee seen xel dal na ci ñoom et vraiment gëm naa ne ñii du nu fal koo xamante ne dalul seen xel képp koo xam ne dalul seen xel dinañ ko effacer. Euh, pour que justement ñu mën a assainir li fi nekk nii mu permettre ñu mën a également ñu liggéey ko dans foofu mais vraiment politisation bi moom saa ni ñu koy bañee ci état bu mag yi noonu la ñu war a góor góorgóorloo ba bañ ko ci lii di promouvoir le mérite et puis ku ñuy récompenser mu nekk par rapport ak résultat yi nga produire ci poste ba ñu la jox mhm. te ñuy fexe également di communiquer ci li ñuy liggéey te di rendre compte peuple sénégale yi ñu mën a juger ci évolution wu dossier yi ñu leen jox pour man c'est ça le plus important Ngone sa impression ci tab yi